agent comptable conseil économique bi Aminata Touré tànnaloon boppam remplacé ko keneen moom Aminata Touré nag li muy amali ndaje di recevoir ay om politique ngir ñu mën koo jàppale ci la ñu yaakaar ni waaj la ngir mën a doon candidat 2024 bari na lool. mu jóge ci présidence conseil économique fukki weer ak juróom-benn gannaaw ba mu fa wuutoo Aminata taal mel na lool ni mooy jeexal àndam ak Macky Sall mi nga xam ne ci wetam ci wàllu politique doon na ci moom ministre de la justice premier ministre envoyé spécial ak président conseil économique. bu fekkee Idrissa Seck mujjul nangu remplacer ko foofee ca conseil économique moom mi nga xam ne moom la fa Macky bëgg a yóbbu Mahammed Boun Abdallah Dionne mën naa am moom mi nga xam ne moom itam ñàkk na postam di secrétaire général président de la république dem foofee ca conseil économique. xibaar yi ñu am itam wane na ni président waajalul remaniement bu ndaw. ndax yëlëb dëgg la fas yéene nde gannaaw Aminata Touré mii ñeneen ñu ñu doon tudd yaakaar ne dañoo gudd bañ bokk ci Amadou Ba ak Mouhamadou Makhtar Cissé ñoom itam lang nañ lool cate ministre des affaires étrangères bi moom fan yii yëpp feeñul fenn ndax jàngoro ju ko tëral boo moytuwul Amadou Hott mën na ko remplacer foofee yóbbaale coopération ministère de l'économie des finance et plan itam mën naa dellu siwaat waaye mën naa am Abdoulaye Daouda jàll mii du ko jiite ndax moom itam wane na tëleem te ñu bëri critiqué nañ ko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 ak bitim réew. Ah, waaw lii ñu am lépp tawfeex ci sëriñ bi mën a may. gën noo gàtt noo tawfeex ci sëriñ bi.